ñu jegee lépp a jeex na loolu nag du waxam bàyyi laay ko wax bàyyi laay moo wax ni bu ñu gungee aji dem ji ba dellu si waat daal mbokk gi njaboot gi ak mbokk yi mu ni tasaaroo leen ci bu leen fatajee ci loolu la bàyyi laay wax leneen luñ fi def ñoo ko kër suñu bopp bàyyi du santaaneen nit ñi nag boo waxee ñu ni gën a mbokk dafa mel na léegi mbokk la ñuy jaay ci dëj yi ak xew yi bu sa ëllëg saa ñëpp a dajewaat fi toilette ba rafet ñu teg sees yi teg photo yi génne ndox yu sedd yi ñuy wax lu ñor ak lu ñorul fàttan ñu bu yàgg ci demoon boole si ak weddi seen waxu yonent muy Seydina Imaam Allahi xayra xalqullah bàyyi lay jaanam wàcc na دفني أم الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم رسلي وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وسلم ما يؤمنون ولا يؤمنون bàyyi laay li maa ngi sant yàlla yàlla mi nga xam moo bind mi def yëpp ba pare def ci seen biir ay yonent waaye ne yonent yëpp mu tànn si Moustapha te mooma dama koy wax démb rek ma ne leen islam mooy crème soow mi islam mooy crème soow mi yonent sa aadama ba si yonti yàlla isa alayhi dama ni islam mooy seen crème waane islaam xam ngeen lan mooy crème am diini jii yàlla yónni Seydina Imaam ndax yàlla moo ko wax laqad manna Allahu kon nun yàlla bu nu placé foofa nga xam ni lu yàlla bind ak ni mu toll xamuñu ñaata milliards la ak ñi fi jóge ñëpp yàlla ne yéen a ma si gënal yéen ak seen njiit yéen a ma si gënal waaye nun nag mu ñàkk ful ñàkk fayda bay santa ñu am xel yàlla bu nu neexee nu def bu nu neexee nu bàyyi bu nu toroxee noo toroxal suñu te dama leen di jox benn dëgg fii ak nekk noo ngi si lu nu tekki dara man maa leen ko wax de booyee boo ngeen dindal في أجل نونك لا هو باي لا هو كي جاب دروان نجاد بوس نولتك توس بني خيب فاول نعم خير خلق الله نن لين خير خلق سر بكن نن لين خير خلق سر بكن نن لين سخي باي لو باي لا هو خلو جزيك لو متر لو باي فاول كون دماني دعوي جيتو أدنو تفسنو بناو أخي ونبيه lu soxla rek tàllal ko loxo mu jox ñu dootuñu sonn àdduna nun lay xaar ngir bu nu baaxee mu jox ñu lu mu am lépp àllaaxira àjjana nun lay xaar ku yàlla may loolu nga wàcce ka fa di saggan ba di toppandoo ñoo xam ne doo seen moroom doo seen nawle léegi sax nga far nag topp seen ginnaaw di daw waa kon nun lan moo ñu jot nan leen xoolaat suñu bopp lay maxtaar bàyyi lay naxunu sëy di naxunu wallaahi bàyyi lay naxunu sëy di naxunu waaye nag bu ñu fi nekkee di sàggan na ah bàyyi lay dañuy la wax waaye adduna bi dafa soppeeku léegi kenn mënu ko jëfe parce que kon say mbokk dañ lay ne rek oustaz nii ah mais yéen mu nekk jëm na ko di xool laa yéen pour dóor leen kat waaye bu mu gisee dëgg gi def si yow dama ni dëgg kenn du ko wecc ak niin ku am dëgg ba pare wecc ko ak niin dama ni di nga torox adduna di torox laa bàyyi laay ne ne lu ngeen jëf ma nga fa teew di leen xaar bu nu yaakaaree ne danga naan laa yéen naa rek àjjana laa jëm bàyyi laay waxu ma nag dana am wala du am waaye bàyyi laay waxu ko seen joxu nee lu ngeen jëf ma nga fa teew di leen xaar bu dee lu rafet ma nga fa toog di la xaar bu dee safaan ba ma nga fa toog di la xaar kon lan moo tere comme moom moo xam li baax li sant nu ko lu tere nu nekk si lu tere nu daw lu bon li waaye lu mu nu wax lu ne noo ngay xooloon say def ak lanu su dul def ndax bañ adduna meren moom jiw yoon adduna ba pare est-ce que ñoo ko ñoo ko kon lay maxtaar noo ngi leen di jéggal noo ngi ñaanal seex ak njabootam yëpp nag seex yal na ko yàlla yërëm ci jéggal seex yal na ko yàlla tàbbal si biir yërmande joxal joxal ma dama ne seex yal na ko yàlla tàbbal si biir yërmande ci barki Seydina Imaam Allah wa sallam maamam ja day najaayam najaayam day ndeysaan dafa gëmoon ba jeex wallaahi dafa gëmoon ba jeex gis ngeen gëm googu nag ba ne ba nag di mañ fi gis ngeen na mag ñameeloon du fi jóg nun noo fi jóg nun noo fi jóg waaye na mag ñameelul ba nag di mañ fi lu tax nu bari macha allah ba pare ma nunu tekki dara

mais eh, loolu rek la du leneen du leneen diw du fi defee lii diw du fi waxee lii puisque kon nit ñi dañ koy xam ah da nga bëgg mu suul te fekk booba kooku moo yor kaddu bi feeñee diine ji bu dee moom nag da nga xam moom dafa yàlla def wala déet nga ne nag du ko fi waxee ndax sàmm sa daraja dama ni loolu dama bëgg kilifa yëpp jot nañu yaatal diine ji nañu ragal yàlla ci diine ji diine ji yàlla moo ko moom bàyyi lay sax moom ko bàyyi lay sax moomu diine ji yàlla da ko wóolu jiital ko bu yoneen yi bu yoroon suñu jukko yi yàlla du ko jiital moom salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di balu àq di leen baal yàlla nañu yàlla boole jéggal man nag bu mu jógee fii rek damay daal di yeewee ngeen toog na yàlla xanaa dama leen di bàyyi ko ngeen ko seen waxtaan waa koor ñu ñaan Gracias.